salaamaaleykum mbokk internet Setsima TV di am mbégte contentement saa su nekkee ñuy topp ñu bàyyi xel tey nag ñu teew fii si cité Aline Sow seesi woon benn naanaan boo xam te nee naa leen xale la mais ba mu duggee si wàllum cinéma ba tey manqué na fi apprenti ba ñëpp di ko bàyyi xel ñu bàyyi ko mu doog mbokk internet yi Babacar wala Mansour. boo jox baan. <laughs> la. ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk internet Setsima TV. asalaamaaleykum Sénégal. asalaamaaleykum àdduna maa leen nuyu ku si nekk sa tur ak sant di ñaan yàlla jàmm sax si réew mi euh, ñu ngi dugg si weeru koor yàlla may ñu fekkee ko si jàmm dugg si jàmm génn si jàmm incha allah rabi. tey bu ñu bëggoon xam kuy Babacar wala kuy différence Babacar ak Mansour. bon Babacar ak Mansour différence bi bëri trop sax parce que Mansour je peux benn mbubu mooy solal su may génn mais Mansour mi ngi fii moom. Babacar waaw Babacar benn ndaw la bu am avenir ñu yónni ko yaa xamti ko xam lu koy xaar sama waa kër <laughs> sama waa kër ñëw yónni ko waaw waaye. Babacar ñu gis la ci milieu cinéma day mel ni daaw dañ ci gis benn seri bu tudd seri Mariama la moo la ba nga dugg ci milieu bi. bon affaire yi gëm-gëm la rek ak bëgg-bëgg. parce que tey jii je me dis yàlla la si jàppale nga dem si ba jeex da nga ko yàgg bëgg wala wala da nga daaw la affaire bi gëm-gëm gi daaw la ñëw wala da nga ko yàgg depuis petit comme ni ko yenn artistes waxee. non non non euh, nekkul su nekkoon sama rêve en fait juste jour gis benn nit def dara rek mu neex la yaram yàlla defal la si def dara mu neex la. bëri na. sital kii wala benn wala ñaar. jëpp di sama papa Thierno Diallo. Jules César gars yi bëri nañu motivé moo def ko. Mhm. sa intégration biir biir Yes Dakar nan nga def ba intégré biir Yes Dakar. bon yomb na je peux dire yomb na yombul parce que euh, saison 1 y avait j'avais un gars qui s'appelle bu doon tourné foofu bu dee sera nga saison bi nga xamee mooy ponkal bi doon ruubee si classe noonu sama gars noonu quoi fekk mi ngi tombé koor merci te mu ponkal nii rek quoi léegi ma ma woo ko ne ko booy doo jaar gàlle mun a maa ngi nii tournage géej waaye du coup mun a ma jaar fa xam nga rek koor ñun góor ñuy def këppoo jàlla bi di wër rek ma dem fa taxaw na waxtaan vite fait dem ñibbi prochain tournage man nelaw bay onze heures midi mu wooma ma booy di nga mën ñëw tourné ma wax lu may tourné mu ne ma ñëwal rek di ko ma sol vite fait waxuma sama waa kër dara na dama ñëw sol rek génn sama yoon ba nu muy ba nu euh, ma nekk figurant ba ni épisode di génne bu muy génn yëgu moo sax dama gis ñu bëri di capture di ma envoyé capture envoyé capture envoyé après affaire bi ëpp moo loxo te si figurant kese mais sant yàlla quand même sant yàlla quoi mu jeex ñu ba saison 2 yàlla ubbi porte yi ma ne ca kaw saison 2 waa saison 2 lañ lañ tourné xam naa saison 3 dina ñëw di yàgg dara incha allah. sa premier tournage nga dem tàggoo sa yaay tàggoo sa pap tàggoo kenn seen waa kër nga jékki saay rek dem sa yoon ba nga ñibbisee ñoom lan nga leen wax. waxuma leen dara du toog nii rek toog en famille di waxtaan ba si yàgg rek affaire romb <laughs> ñu xoolante suñu biir après ñu conseil ma ne ma xamal fi nga teg sa tànk xam nga rek euh, conseil euh, parent bu jëm si doom mais parfois avant conseil bi dinañ la wax dara wala ñu mer yooyu yëpp amu ci. non non non non sama waa famille sama waa kër wax dëgg amuñ problème boobu ñoom juste bul dëng bul def lu ñuy tere bul teg yoon ñu jubal rek amuñ problème boobu. fàttali sa séquence foofu comme figurant nga fa woon. sama première séquence sama première séquence boo duudi ba duudi ba xa gel bi piégé quoi ba xa xam nga. dënn bi ni waa si première saison 1 bi di ko mu dugg si classe bi mën a ko cus parce que cus yi daf feeñoon <laughs> waaw je veux dire redoublant laa loolu mooy je veux dire moo nekk sax première séquence léegi sa in nga ne sa interrogation noonu la noonu la sa interrogation bi yow mën a de ak gaa yi nga xamante ne sa morom yi bu ñu bëggee dugg si biir série dañuy ñafe buuxante. mais yàlla yàlla mayul ñëpp ñu ci tolloo lépp lépp mënul yomb si ñëpp lépp mënul métti tam si ñëpp ñii day métti si ñoom ñii mu yomb si yomb donc maa ngi sant yàlla quoi yëg ma si benn coono wax dëgg yàlla dugg naa si bu yomb te bëgg naa si génn tam génn bu yomb incha allah rabbi. mais gis nañ ne ñoom tamit ñi ngi si ñi ngi def ay yeneen série yeneen projet ñi ngi si mais gis nañ si gaay mm. quelques personnages yoo xam ne ñu ngi woon si série Maria mais yow te gis ñu la ci. waaw xam man tey jii man dama dama nekk ndaw ni na nekku si ar bi kese laayam parce damay liggéey damay liggéey may def di coup sama temps may ma bokk may may mën a def tout le temps tout le temps projet bu ñëw nga dugg en plus projet bu nekk ak lu muy laaj mhm. projet bu génne laajul Mansour donc Mansour dafa nekk projet bu génne laaj Mansour Mansour dafa nekk. da ngaa gis ne projet bi laajul ko. <laughs> waxal rek. non projet bi laajul Mansour mais ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si ay temps ngi si ñu si ay projet. sama sorte. comme yan ak yan. no na mais da ngay benn ñi xam ne kii mi ngi ci sa fans yi xam ne carrément Mansour mi ngi ci ay projet mi ngi ci yoon di la gën a bàyyi xel. non mi ngi ñaax samay fans ñu ñoom lu dugg nañ xam <laughs> doo ci wax. non lu dugg dinañ xam lu dugg dinañ xam incha allah rabi. léegi comme genre nga ne da am liggéey yaa ngi liggéey. tu fais quoi. je suis un technicien professionnel. technicien bi nga nekk ak cinéma bi nga nekk ñaari mën nga koo boole. du métti yow. non dina métti duñ ko def parce que nelaw du bëri li nga nelaw moom mën nañ ko compter mun nga wàcc fii dem sa gaal vite fait sangu noppalu takk takkaa jóg tournage par yenn heure boo ñëwee je peux dire ay trois heures temps ngay nelaw soo sa tenue takku jóg. kon ba nga doon tourné Mariam noo doon xam nga góor moom coono moo ko jig franchement moo tax amuñ daal lu ñu si regretté ñu sant yàlla bu baax. bu bëggee dara fa nga def dara tamit guddee tëdd teel a yeew rek daan am solo. sànq sa biir wax damaa dégg nga ne sama liggéey mayu ma yenn projet yi ma ciy dugg te léegi waxaat nga ne liggéey bi ak série yi ak tournage yi mettiwul noonu yëpp. genre parce que tey yenn projet def casting tu jamono ji man li may def boog laay digal sama morom yëpp digalu ma kenn mu bàyyi liggéeyam dem def casting digalu ma kenn mu bàyyi liggéeyam dem def série yi dafay jeex. liggéey mënu jeex parce que ay ndaw nañu ut gis nañ dëkk bi nu mu ku nekk ak yaa ngi lijjën sa bopp ñu ngi xeex fii xeex fële te ñi ngi xeexal ku nekk yooyu yaa ngi te ñun stable guñ yoraguñ donc nañ focus suñu bopp liggéey bañ a xaar ñooñu. ñi ngi gis différence Babacar ak Mansour maturité bi nga am ci Babacar ak ñàkk maturité bi nga am si Serigne Bariawa bi ci Mansour. non bokkul dañoo personne ne lépp mënuy yem <laughs> ba tey tamit euh, comme ñu ngi lay gis fan yi ci ay côté ay défilé yooyu yow da ngay def genre man wala. waaw damay toog ma rek ma rek photo laay def gisoon nañ la fii Saint-Louis. mosul li loolu. <laughs> non dañu si leeral tuuti rek pour sa fan si xam nga fan si yëpp rek laa amee. non loolu euh, collection kees yi la woon benn agence bu nekk Maris. waaw kooku man man maay sol modèle mi ak feuse jab bazin pour les modes korité man maay sol tenue rasul aussi euh, boo ko dag gaa yoo xam ne maay sol seen tenue nekk loolu moo affaire bi moo tax si beneen projet non bëgg naa tey soo woon tournage léegi léegi nii man tegal ma xaalis man yow naa na xaalis génn rek na rek xaw ma dañuy nelaw duñ nelaw mais xaalis génn ñoom dafa joxal li nga soxla jël suñu xaalis dem suñu poche tëdd nelaw loolu fi am dëkk bi dafa metti wala. mais ay comme boog yeneen maison production ñu ngi lay contacter wala. waaw waaw ñu ngi liggéey. ak ñoom. waaw ñu ngi liggéey. kon mën nga ñu sital benn parce que day mel ni da ngaa xaw a yu Yes <laughs> Dakar. foofu sama kër la non foofu du ma ko off di nuy jibi de passage foofu sama kër la foofu mun foofu su ma demoon ba yegg leen niveau sa mun ma ko bàyyi. parce que tey jii fi ma yegg ak fi ma toll tey grâce à ñoom la donc munu leen fay. aussi maa leen di gërëm ñëpp euh, équipe technique yëpp maa nuyu waaw. acteur la wala comédien la. Babacar utkat xaalis la. nekk foo ñu laaj acteur nga wala comédien nga jël ci benn. non du ma comédien nag. Mhm. mais comédien ñoo gën a taxaw acteur waaw lépp mën naa ne. Ah, moom laa bëgg. <laughs> lépp comédien moo ko moo ko moo ko kii nañ xam ni ñu koy waxee moo ko moo ko tënk xam moo ko jur. tey xam nga football yow mënoo ne góol moo def lépp dina milieu terrain am attaquant am défenseur ñii comédien lañ ñii ay humoriste lañ man acteur la <laughs> waxti acteur nga wala comédien nga ne yow acteur nga léegi cinéma léegi ak cinéma avant. ban dif comme différence bi ñu si parce que gis nañ ni léegi euh, cinéma bi dafa développé mm-hmm. te ñu ngi ñuy dundaloo vie boo xamante ne ay vie de luxe te loolu ñun ñun amuñu ko mais yéen a ñuy imposer loolu. ah ñuy dund vie de luxe man boo ko mos a def. mais ci mais yow acteur nga mais mën nga ñuy wax différence bi pourquoi loolu parce que au début cinéma yooyu affaire yi dafa dafa dafa kii woon daal. dafay maanaam da ngay dund normal. da ngay dund normal sa vie normale lañ la doon. mais léegi dañ dee imposer luxe kër yi rafet oto yi rafet am ay xale yu mool. non bokkul tey lépp loo gis euh, dafay fa am progression xam nga munu ñaanoo yàlla nekk si benn affaire te du progresser tey bu ñu demee bay dund ay luxe euh, dund ay oto yu rafet ay gël yu mool cest à affaire mi nga évoluer ngay gis euh, ay qualité image yoo xam te ne macha allah bu njëkk amoo tey jii tegal ay clip ay Viviane anciens yi nga mais mais mais théâtre cinéma démb moo gënoon mën a yeete léegi. bokkul. bokkul. théâtre lii ay téléfilm la. dama dama ne théâtre génn wat théâtre ne la cinéma lépp cinéma. waaye lépp cinéma la mais lu nekk lu laaj rek nekk lu laaj. <laughs> différence bi laa bëgg xam. na mooy différence bi bon tey euh, bu njëkk ba gars yi doon def di yeete euh, di ko jamono léegi gars yi bëgguñ ku leen di yee ñun dafa yëf maata ñu siiwal la dafa yëf maata boo ni yee doo leen déglu duñ la déglu loolu ay cas bi. nga gis ne léegi jamono ji dafa changé ba nga xamante nit ñi bëggatuñ ku leen yee yow dafa yëf maa tey yëf lu neex rek. waaye laa foofu la laay foofu la toll te tey je me dis que yow en personne boo nekkoon si mbedd bi di liggéeyante nit ñi doo dem nag ku nekk mi ngi def lu ko saf da leen xel xam nga bàyyi woon xel donc yow dem da ngay def lu la saf nga bañ leen bàyyi xel buñ la bàyyi xel ñoom ñooy taal yow façon yaa ngi dem sa dem waaye amul leneen. ba tamit ñi naan euh, comme boog si série bi complicité bi nga am ak euh, sa gel bi. c'est ça waaw seen complicité parce que gis nañ vidéo yu bëri yéen ñaar ngeen koy def parce que maa ngi dégg sax naan est-ce que vie bi est-ce que du vrai. non kooku kooku kooku sama rakk lépp la foofu laa yem. yaa yaa mag Chacha. ah sama lépp la. mais seen complicité. waaw noonu la mën a parce que ñoo bokk liggéey bi donc foo ñu ay complice. <laughs> mais leeral tuuti rek. waxal da ngay may fan si rek ñu xam kon bo ñi la bëgg ak ñu bëgg Chacha nga xam ne lii amul lii moo am wala lii am na. waaw maa Chacha génn noo <laughs> génn ci question boobu si tamit. waaw lay bañ a dugg ah, que damay dégg ñu naan yi ñoom seen biir dañuy dañuy dañuy nekk dañuy génn seen biir. amul loolu amul yes Dakar amul Mariama de. yow bu amoon sa doxoo. non ma kaaw man dara saf ma man dara nekkalu ma ca du amoon dama koy mais amu fa ah, amu fa c'est ça dama rakkal sama lépp la. Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér